sunu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu tey mbégte del soit seen biir émission euh, dañ kumpa euh, tey nag niñ koy faral di waxee yàgg nañu ko wax ne am nañu gan gu spécial mais li ñuy wax naan wuré wi dem na këng waxi mag dem nañ tàlli euh, tey ki am gan gu lañ ko mën a tuddee muy kan di Mouhamed Ndao Tyson du génération bul faale ñenn ñi ne di ko dippee kenn koo xamee ne li mu def ci làmb ji kenn du ci indi sikki sàkk waaye it jaar-jaaram ci wàllu làmb ji jaar-jaaram ci wàllu ndawam jaar-jaaram ci wàllu dundam ñu am yéen càmbar ko ak moom ñenn ñi dippee ko tey bu doon ne démb dañ naan birima bi ci benn baat bi bu waxee ren balaa waxati déwén muy wund ne waxam bariwul loolu xëy na danañ ci ñëw ak moom ñu am mbégte la dalal tey ci biir émission dañ kumpa Mohamed alhamdulilah rabbil alamin maa ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm sumay waajur ak suma sëriñ Maolana Cheikh Ibrahim eh, di am contentement trop daje ak yow ci plateau bi. sa wax bari wul euh, na mën nañ ne mbir la mu ñuy lu ñutu mhm. waye xeyna tay mom euh, la nga daan bañ. Mhm. da nga ñu ko nangul. Mhm. wa en fait du question sax li ma doon bañ dama koy nangu mais comme ni nga ko waxee xam nga tubaab day faral di wax ne trop de communication tue la communication. parce que wax tamit je pense que ne am solo parce que tamit ñun ay hommes publics lañ. dafay jaadu léeg aussi tamit suñ temps suñu ko mayee euh, ñu génn wax ak askan bi mais soo xoolee aussi tamit àdduna lépp lu ci defaru dañuy faral di wax ne wax moo ko defar mais lépp aussi tamit lu yàqu wax aussi tamit da koy parce que l'union wax si la parole est d'argent le silence est en or mhm. mais une waree leeral comme ni nga ko defee tey ni la ko parce que je pense que émission bi dañ komba tout doux. Mhm. et incha allah <laughs> dinañ ci dugg luñ ci war a leeral ñu leeral ko si euh, loolu lañ doon sàkku dama doon xool ndax baat bi yeewu na am déet mhm. euh, bi nga xëyee loo naan euh, bu ma xëyee nag naan naa kénkéliba xam et puis comme am naa habitude def ko waroon naa xëy an xane ji mais dama doon xalaat parce que tey xam nga yow kuy jàkkaarloog yow aussi tamit foog mu jël ay motuwaayam. Euh, kon di ngay seetaan Kénkiliba. <clears throat> waaw effectivement comme man je suis matinal damay teel a yeewu. <clears throat> tey kon laajoon yaay kan loo koy tontu. waaw man eh, jaam bu xeebu laa rek eh, nekk sénégalais nekk jullit. xam tax na aussi tamit euh, pourquoi nekk sénégalais parce que Tyson c'est un quand je dis jullit tudd Mohamed Ndaw xam ma si sant yàlla bu baax aussi euh, nekk jeune sénégalais boo xam ne euh, yàlla da ko def tey euh, en 95 vingt révélé ko au public comme homme public mm-hmm. xam nga depuis lors aussi tamit ñuy yëngatu ci benn sport bu ñuy wax lamb. Euh, xëy na peut-être euh, dinañ ci ñëw parce que au début c'était pas du tout évident mm-hmm. et lolu lañ def parce que jógee kaolak li ma koy faral di waxe judo kaolak mm-hmm. màggee face yaru Pikine muy ñek étape yu bokk lolu moy suma jaar-jaar euh, judo kaolak mm-hmm. kon kaolak fa lañuy dess donc buma déggé li nga wax moy kaolak nga défé sax ndaw waaw absolument parce que buma may Dakar jang mom fi indi parce que sama papa Dakar la doon liggéey ma kaolak Kaolack euh jógee kaolak pour ñëw fekke suma papa Dakar pour jangi bi ngay nek tout temps nek kaolak ndax man nañ ne ku léejoon nga am euh, Mohamed dana won tek rek. bon man bu ma nekkee xalé aussi eh, mën na jappé suma bop comme xalé bu lej xam bon xalé bu yëngatu. Mhm. parce que tamit lu suma morom yëpp don def don na ko def don na football don na fo don na teub di dal. Mhm. mais aussi tamit lepp c'était était canalisé. di sàcc mango ma sa euh, non kaolak <laughs> kaolak c'est vrai que wa amoon amoon na syndicat mais ñun comme ndàngaan lañu fa dëkkoon. xam nga lu si ëpp ñu ko passé si diggante stade bi. Euh, syndicat comme tu dis ak booru waax ba. xam nga tey bokkoon naa ci lu ñuy wax. mëneel waaw. Mm. yaa nekkoon daal chef de bi dafa gaañu waxee. <laughs> waaw mun nañu ko daan demee moom mooy mujj. waaw euh, xam nga souvent c'est vrai que euh, soo defee xale yi lu si ëpp ñun. en fait dañ doon gëna organiser wu ci suñ biir xam nga colédra yi xam nga jamono ay mhm. jamono colédra la ay jamono xam nga. ay nuit blanche jamono jojo ko mënon a tóoj nga. wa <laughs> nga jool mu braaye mom <laughs> wa c'est vrai que nag dañoo yàgg a dooj. Euh, tey bu ñu mhm. euh, lu jëlee Tyson kaolak bu indi ko dakaro wa moy comme li ma wax rek euh, je pense que déjà man jang mom fi indi won xam mhm. nga won pour jang si sama papa. Euh, fii la doon liggéey bu may jógee Kaolack jàng moo ma indi dakaar waaw comme ni ma ko waxee nag ma juddoo Kaolack yaroo Fass màggee Pikine mais yaroo Fass waaw <laughs> xam nga euh, loolu luy jaaxal nit ñi la euh. ndax ku tudd Tyson rek da nga naan Pikine mhm. lu la booleeg Fass googu parce que sama papa Fass la dëkkoon en fait parce que tout récemment rek maa ngi taseeg euh, père Mbaye Gueye mhm. mooy expliqué ne ma maag sa papa euh, fanaan nañ ci bokk nañ nekk presque pendant 6 mois mhm. xam nga ñu dëkk Fass ñëpp

Fass universelle mhm. mais Pikine aussi tamit je pense que né euh, tamit ku nekk xamna ci affaireu lamb sen taarix. mais nak Pikine dégg naa féete fay dund de. waaw loolu la yalla dogal parce que tay so xolé banlieue mo demé noonu. Mhm. mu continuer nak di dem geej di fay fekk ay champion ku melni ni numéro 1 mhm. xam nga ma ngi fatadu ko sax amnañ histoire mak mom parce que buñu ñuy jappanté xam nga eh, Pikine lañ jappanté parce que légui fekk dama ñëw di di di fekk lañu

Euh, dafa doon tàmm di bëreek man affaire boobu nag ma mbër de xam nga léegi nag mu ne Balla jëlal booy bi parce que booy bi xam naa ne soo sooy bëreek moom war na la mun a apporter dara affaire yi quoi géej waaw fekk boobu man du mbër mhm. boobu maa ngi yu bëri bëri bu metti affaire yi demé non et tout balla énervé affaire yi quoi daal di yëg boppam waaw yëg boppam affaire yi quoi parce que xeyna peut être lim doon xaar wala lim yaakaaron ci man après ñu gëddante ma way ma xam nga affaire salum salum rek mm-hmm. <laughs> xam nga man tamit ma wax ko wax bu xawa déplacer wu ñu taxalé ñu affaire yi quoi mm-hmm. après ma tok suma roxu jabu suma ñamru après nak ma gis gaay yi suñu tay eh wa balla eh mbeur mané ñu tangalé nak di la ñëpp di may xol quoi mm-hmm. melni comme dama def dara après ma gis gaay yi suñu tawee ñëw eh wa mbeur affaire yi wa balla mané way man kay ndeke man gaynde gi man ndeke man voilà tu vois xam nga et c'est parti comme ça tu ma gis ne damay bëreeg champion bi mhm. te du ma mën a daane temps yooyu Balla mi ngi fay ko ay millions ma ne non attends man kon mbër laay nekk léegi nag xam nga ma commencé voilà ma commencé nag xam nga di bëree commencé dem ci mbapat yi affaire yi nag euh, un jour mu am mbapat mu amoon ginnaaw raay ma dem gagné nag bi nag gars yi daw ñëw waaw ñëw koñ ba yee kërëb kërëb léegi nag daw si song suñ kër affaire ka sam bàpp woom fekk dafa ma doon wax nan ma mais yow dama dégg fekk su liggéey ñu ne ko ah yow sa doom ji gis nañ ko fii gis nañ ko ma ma ko non non man du man dañ ma jaawale affaire yi sam bàpp woom ma ne ma kon danga nga doon xoolee bañ jox la nag bi wala <laughs> ko <laughs> non non affaire yooyu mu ne ma xam nga yow defal ndànk dinaa jóg say mbir affaire yooyu quoi yalla def xam nga so xoolee dem si yalla si alaaji Tafa Ndiaye. Mm-hmm. yalla nako yalla yàlla yërëm yàlla na te xare ko aljana mm-hmm. eh, daf ma mos inviter RTS bo bëreegu ma xam nga mu ñew ne ma waaw yow deg nañ la si mbappan mi euh, américain Tyson affaire yi demee noonu et tout manako da nga bëgg beure manako ma waaw man je suis venu pour le titre. Mm-hmm du plus grand au plus petit ku ñu ma jox ma bëreeg moom. parce que voilà man tay dama ñew pour nek mbeur affaire yi quoi suñu wa kër dañuy tok rek gis ma télé gis ma RTS comme ça. lan ngay wax. ma dem Kaolack fekk mu amone ben tournoi bu mag bo xamné IFAN moko organiser wo mané xaar mu dem tagu ji suma yaay. né ko dal vraiment dama bëggoon dama am combat dama bëggoon ñew pour tàggu la affaire yi dem quoi sama yaay na ma da nga am la. combat. ma ko combat.

xam nga commencé di joy affaire yooyu quoi mané ko do xam nga tamit mo négocier ak mom ndax ne ko non xam nga yaay lamb xam tay luma bëgg la man xam nga duma tox duma nan ma ma ci dara dama japp suma njàmbur xam mais lii tay absolument xam nga rek <laughs> xam nga pour dalal xéram comme suma xarit la suma xam nga mu nangul la waaw suma lepp la non non non nangul xam nga affaire yi demee non nit kuy joy kay talon nangu xam il fallait que déjà ma waxtaan ak mom ci lolu xam ne ko nak vraiment E, defuma ko pour bon defuma ko pour dara et tout xam far koñ bi nak dafa amone mm, mm, comme li ma wax mbapat mu mag mhm. ma ñew indi su maire bi gis ma ma teg suma ay sœur commencé teg suma ay bejeen commencé ay kay wajon nga ba <laughs> xam nga parce que boobu maa ngi commencé bëre mbapat te ñom yeguñ ko yeguñ ko maire bi mel ni kuy sétan dof quoi xam nga yalla sutural ma ma beure daal ñi fa nekkon ñepp moy mbapat kaolax waaw mbapat kaolax bu amoon ciow yi mané ko nak légui man ma ngi dem Dakar dimanche la wara beure

dem si yàlla ibu soow boobu ma lay wax te mu doon yore photo baay bi moom photo boobu ci moom la ko yàlla jagleeloon parce que fekk na yàlla wonoon ko ko ci gënt waaye nag doomu aadama bu mu ne am na fu yàlla ay dugal te Mohamed ba mu nekkee xale bu tuuti nekk sept la ko yàlla xir ci baay yàlla nag moo xam fam ko wan a leeg baay moo xam itam la tax mu sopp baay lu nekk gis naa ko ci Mohamed am na combat gis naa ñu ci dee te man may yaayam maa ngi dund xam nga ko ko fam ko yegg man yeggu ba fa man sama àddina yëpp euh, sama baat benn la parce que tey buñ ne Mohamed am na ndam mooy alhamdulilahi rabbil alamina suñ ne Mohamed daanu na it dama naan alhamdulilahi rabbil alamin boo siwee lu nekk di dinañ la ko waxal lu de di ngeen ko dégg léeg-léeg damay toog yi dégg ji daan Tyson dafa soxor Tyson dafa euh, nay Tyson du joxe Tyson lii damay ree ree daf may jàpp parce que toujours lenn lay xuloog moom dama ko naa xam nga yow lan lu lay sonal mooy garaawul lu nit wax rek nga ne garaawul mos naa dugg ci benn oto ma digg am doom ak kerek sax dama wax waa ji li may wax de la rek man duma wax nit maa mosa jur diw wala maa mosa xam diw sax ñuy wax muy wax di wax di wax di wax presque mot na genn wàlli waxtu mujj gi ma ne ko ah yow suma waay yow de xam nga Mohamed mu ne ma man maa ko xam ñoo bokkoon ñoo bokk benn lal bu ñuy fanaan ñoo bokk benn néeg bu ñuy tëdd ma ne ko ah yow de yow de kon ni ma ko bëggee suñu su su ma la jegee su ma xamoon foo dëkk dinaa ñëw nga won ma ko ma ree kere kooku lu ne wax na ko wax na sax ba de say seen yaayam njaago la paapam wóor na rasulaay àddina yëpp a mooy dégg Baay Ñas moo ko tu moo leen tuubal <laughs> ma ko moo leen tuubal lu nekk mu wax billaahi wallaahi ak kaabatu lillaahi nga ba jóge mos naa dégg itam ma dugg ci benn oto mu ne Tyson Tyson mëri na la dëkk man xam naa ko parce que yaayam dafa teel a dee nampul sax wenn yaayam billaahi wallaahi ak kaabati lillaahi gi nga xam ne doomu aadama yi rek lu ñoo koy wax ma ne ah xons billaahi bi de seytaane rajim astafirulaahi boobu de moom bëgguma ko rek waaye billaahi wallaahi ak kaabati lillaahi àddina may dégg ba léegi waxuma ko ne sax xam naa tey sax ma xam ne rek doomu aadama yi lu bu wax rek lu nekk la ñuy wax bu wax jógee lu nekk lañuy wax euh, yaa ko démb hmm. euh, kii moo la bàyyi woon Euh, waaw moom laa baaboon <laughs> xam nga ba mu bàyyi ma parce que comme suma xarit la comme ni ma ko waxee euh, tamit nekk euh, suma lépp. moom da nga génn taxaw ma dig sa digganteeg bàyyi. waaw parce que xam nga loolu. tey comme am na ci lu ko am na moom. waaw na ci am yàqin. dëgg la dëgg la ba indil ñu historique photo bi boobu nga xamee ne daa nga ko yore. absolument parce que comme ni ñu ko waxee ñun ñëpp. ay taalibe Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif radiallahu taala anhu lañ xam e moom su gàmm jotee mook suma papa Tiwaawan la ñuy dem man Kaolack laa juddoo mais dama ñëw ba dakaar xam kan mooy Baye Niass parce que Baye Niass bu muy génn àdduna en soixante quinze boobu man trois ans laa am bu ma ñëwee dakaar ci laa xam dëgg-dëgg kan mooy Baye Niass hmm. su ma mbër gi comme li may wax rek Alaaji Abdoulaye taawu Baye Niass xalif yàlla na ko yàlla yërëm te yokk leeram doon na wax ne xale bi dinañu bëriloo ñun ñëpp hmm? parce que tey euh, Baye Niass dafa amoon li mu waxoon ci photo boobu hmm? waxoon ko si stade Dakar yi hmm? yëkkati nañu photo Baye photo Baye Cheikh al Islam tey su fekkee ne dafa am jaamu yàlla boo xam ne dafa jóg jëmmal loolu. Mhm. et eh, mag yi dañ ci gis seen bopp. moo tax eh, comme ni mu ko waxee eh, am na loo xam ne xëy na sax nit du ko mën a développer. Mhm. loo munti nekk ci àdduna ñett daf la ciy fekk. mais ci boo munti am. muy sa juddu. Mhm. sa éducation ak sa diine. lu ñuy wax liggéey leen ba ngeen yaakaar ne doo leen dee mais jaamu leen yàlla ba ngeen yaakaar ne suba ngeen di dee génération bul faale fu mu jógee nu ngeen def ba taxawal génération bul faale waaw mooy comme li ma wax rek xam nga euh, nekk xale du tee nga am ambition parce que Sénégal euh, crise de valeur fi am et tey soo xoolee bul faale mm-hmm. concept la mais nag bi nga nee bul faale moom yaakaar ñoo yaakaaroon ne yow da ngaa ñëw sax ngir euh, waxuma la li fi ne woon ay valeur mhm. waaye bul faale tur wi waaw xam nga tey loolu euh, soo xoolee bul faale bi mhm. dama ne conception dafa am solo mooy dañuy waxoon ne ñun tey mhm. dañuy am fuñ jëm ñu ne doo leen fa yegg ñu ne bul faale parce que liggéey jaamu yàlla la moo tax nit sa dund pour mu am sens foog nga am foo ko teg et que génération bobo, fallait que nous jéem def dara c'est une génération bobo xamné souvent j'entends les gens parler de ouais génération 68 mhm. nangam nang mais après l'année blanche génération 88 nga xol groupe rap yi nga mhm. xol ay jeunes c'est lañ commencé tay di jaay en ay marché ambulant yooyu jamono joju lay commencé mu am leneen lu juddu am leneen lo xamné tay tey ñooñu bëgg nañ ko def mhm. ñun nak ci génération bobu lañ bokk nga yanu photo bi ñew yenu photo bi avant photo bi xam nga ñu xalaat ne ñu lan lañ war a def fekkoon am na lu fi amoon mhm. parce que tey ñun suñ buggee làmb ñun génération exactement mhm. génération peut-être Tafa Gueye lañ fekkee mhm. ay Mbaye Gueye fekkee wuñ génération mais dégg nañ ko ak ñeneen ak ñeneen léegi ñu ne woon xam nga lu olof Njaay di wax ku jàng lu métti métti mu nax ku jàng tey ñu ne làmb et comme ñun tey am na lu ñu fi fekkoon bu ñëwee si làmb fekk mbër mu duggoon rek xaftaan ngay indi mhm. tuuroo soow tuuroo parce que mbay géeye ko doon def dafaa géey donn ko ñu ñëw indi suñ drapeau ñu ñëw indi indi bu bees mhm. indi chorégraphie indi tey tëgg bu bees après nag am ay journalistes yu gën a tay yo xamné tay ne bind nañ ci sociologue yi. Mhm. wax nañ ci ay phénomène social. Mhm. parce qu'il fallait créer une révolution au niveau de la reine. woné yoon parce que àll bi lëndëmoon na il fallait que mu ñu am ko jall na. ni tax tay ñu naan Tyson. Mhm. bu ñu fàttalikoo daan nga fi euh, mooy comme ni nga ko waxee mais nag bu tafaa ba. fa la coow la nag. wulee ñaaw ni ñu koy waxee. mooy euh, accueil bu am solo boobu nga defoon Kaolack ci jamono jooju. phénomène boobu noo ko dundee. tey amoon naa tolloon naa jamono yoo xam ne wax naa ko waxaat ko. Mhm. te lu ma gëm la barke yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muñ mu tuddee. tey tolloon naa jamono yoo xam ne dama doon ñaan yàlla suñu borom yàlla may ma defet pour mu mun ko jaamoo yàlla suñu borom. lu taxoon loolu. parce que dama xam ne ak ni daan neexee. dama ngay ñaan daanu. xam nga lu tax. Euh, loolu moom boo ko waxee sax gaañ duñ ko lu tax. Hmm. parce que dama xam ne lii ma topp nii du affaire nit. parce que lii ñuy def nii. Hmm. ku ci gorgolu touti rek mën nga nek waliyu yalla suñu borom xam lu tax. Hmm. parce que defaluñ yalla suñu borom lu tax mu defal ñu ñun tay dañuy gën nit ñi gis ñu di xam nit ñi gis ñu di joy nit ñi gis ñu tay di jaxlé kon tay nga tok ak le recul nga ne men lan la defal yalla suñu borom lu tax ba defal ma li te ñaata sénégalais mo fi nek plus de millions de sénégalais yalla seppi la ci jaamu yalla yi hmm. jox la cër bobu kon tay war nga en retour nga posé wu ay question pour lan nga def ba mérité li et lolu mënoo ko am fenn fu dul si diine. mais questionnement boobu nak moo yomb nak ak ni succès mel. xam nga ngay ñaan xam nga lolu xam nga lolu cieur la. man ñuma xam jege ma tuuti euh, man dund sëriñ lay dund. Hmm? parce que so so xolé comme ni nga ko waxee déedéet du sax lolu hmm. so xolé xam nga dund sëriñ waxin la. moy hmm. man je sors pas. tay lu ñuy wax jihaadu nafsu. maanaam jaayanteeg sa bakkan exactly xam nga yàlla may la lépp tey nga siiw tu es un beau gosse mun nga am weccit mhm. mais tey ngay daw doomu aadama yi waxin la du sax daw mhm. mais lu ñuy wax on peut pas arrêter la mer par ses bras gis nga àdduna su la dëgmal see mhm. da koy won ginnaaw pour jël recul. parce que àdduna ñu ko mos a song yëpp daf leen daan mais Tyson bi nga fi nekkee wax dëgg yàlla gaa ñi sax nee nañ mag ñi rek nga doon daan combat yi nga fi beure yep mbag ñi téelu rek xam nga mag ay bëtam surtout lëndëm gi da ngay bayyi bu mu lëndëm rek nga yootu mbag bi ne ko taay mu ne daat daanu donc ban commentaire ngay def ci ñi wax ne mag ñi nga dat wa xam nga tay comme li ma wax da fay yomb man tay so xolé je ne polémique pas en fait man lima gëna amal solo j'ai l'habitude de dire à mes collègues lutteurs su ma xarit mbër yi su ma rakku mbër yi su buñ

ma jox la benn exemple gis nga en 98 orange bi tey ngeen baal ma ci xëy na peut-être publicité bi et tout bu ko France Télécom waree jënd Sonatel publicité bi tey man maa ko waroon def tey heure bi waroon na fekk tey ma nekk actionnaire Sonatel ça c'est une révélation mhm. parce que tey pour wax leen rek nit soo nekkee ci dara da nga war a entouré ak ñi ñu xereñ ñi ñu xam. publicité bi benn lire moo ko def après finalement. parce que buñ soogee ñëw dañ ne woon vraiment dañu bëggoon ma defal leen publicité bi affaire yi demeen fekk boobu Télécom France mi ngi soog a jënd dugg nekk actionnaire Sonatel. man leen da ngeen may fay xaalis. xam nga ñu ne non est-ce que tu n'es pas intéressé par de ma ne leen waaye boobu lan mooy affaire télécom wala affaire yi demeen yi tout mais heure bii tey suñ ko waxoon kenn xamul nu mu toll. loolu bokk na si loo xam ne lu ma gën a métti la tey suma carrière mm-hmm. xam nga tey xëy na peut-être nit ñaa ngi wax affaire euh, victoire wala defet mais loolu rek moo tax mm-hmm. tey ndaw yi dañu war a jege ay nit yu am expérience xam. Mm-hmm. parce que yàlla mooy xool jaam mu def ci moom. kon kon da ngaa kon bu ma la déggee da nga naan publicité boobu boo ko jëloon tey kenn waxatu ko. mais absolument xam nga. bien vrai que defna de façon façon c'est pour le Sénégal <laughs> lu mais comme je dirais, c'est une manière de dire que tu parcours nit ki. Mhm. pour revenir encore le combat de la vie. Mhm. parce que on ne peut pas comprendre des gens qu'on aime qu'on adulte et 20 ans après à la limite ils sont en train de quémander. ñu gis leen tey ñu nekk ci ay situation yu doy waar da ngay gis artistes yi mhm. dangay gis tey yenn nit ñi homme public yi li ma suma benn xarit di wax ne Sénégal li fi gën a métti mhm. mooy dañ lay siiwal ba pare rey la ñu dellu beneen élément del siwaat mhm. bonkal lu mu def te liggéeyul ci dooleem tey ñàkk te làmb ji mu ne ma xaa ma ne ko waaw barki rasulullahi danaa ci def loo xamante ne nit dootu ko ci gaaw def danaa indi làmb foo xamante ne ci cachet boo xamante ne nii su ma la ko waxee tey jii da nga naan ma Fils waxoo dëgg dana ko Fils yow champignon nga toogal jamono yi Moustapha géey moo doon suma mbër. bis dañu mës a toog ma ne ko moo mu ne ma ma ne ko booy duñ dem ci làmb mu ne ma xaa mu ne ma mu ne ma man damay liggéey te Sénégal dañuy jaawatle kuy xëy di nelaw ak ku xëy war a dem tool mënuñu ànd man kaay sëqat dang may fay ma ne ko mais li tax affaire boobu mu ne woon noo xaar ci erreur ñenn ñi rek nga mën a rectifier sa àdduna te làmb ji rek nga gis tey ay lu tolloog dix quelques personnes di ko seetaan tey pratiquer loolu warul mun a nekk milliardaire ci làmb rek la am te tey boo xoolee wax na dëgg tey benn benn El Hadj tey li muy encaissé ci xaalis dañ ne def dañ naan def ko mérito pourquoi tey tey Balla Gaye li muy am ci làmb Yékini li muy am ci làmb Tyson li muy am ci làmb waru ko mérito mun ma xaar bis bu ñu waree dem làmb te bëriwuñu da nga dégg mbir mu rëy ma ne ko ah bon mu ne ma waaw ma mu bëri fekk Bombardier Bombardier daan ñu xey à la une né en fait le cloche est tombé ndax kasse yi wacc ma woo ko téléphone ci VDN ma mo gis nga tay liñ def soleil <laughs> mu ree dama xaar bo paré après bo jógee fi ngay jógee nga jëw mu ne mu gis na liñ def ci soleil bi mais balaa ñu maa gisaa sax dañ may fay mais may dem naan mais moom mais moom bii est-ce nit la ah yàlla def Tapha Gueye ak Balla Gaye di bëre ñu war ko invité mu ñëw mu ne leen du ma damay ma ñëw bàkku si da may fay mbër bu bàkku si ñu fay la 5 millions wala 7 millions fu mu lu ko yàlla dimbalee la. bëri ñu ñu xamul. ku ku ragal nit la yalla nak natt ko mu dugg si lamba ji làmb ji nga xamne danaka da ngay ko ñepp di la xol yalla natto ko mu nek si lamba bi nak ku am diina la man na itam ne en tout cas man kuma sop kuma la nak bëgg la nak nit ki

pour que yenen génération yi xamné mbeur mbër muus la parce que dafa ma doon wax au début dafa doon wax da daan dégg ñuy wax mbër yi ay nak nañ mm-hmm. man mës na waxtaan ak mom si affaire investissement yi muy def mané ko da nga war a wut ay professionnel euh, pour ni jàppale la ci sa liggéey mu ne ma non man ñi may liggéeyal sama ay xarit nañ sama ay am di jàmm nañu wóolu naa leen mën na leen wóolu baax na mais da ngay wut ay vrai professionnel nga def signer contrat noir sur blanc parce que man dama xaw jang tuuti droit donc mané ko yenn say dang kay teugal ci kay mais comme que moom kóolute ak wëllëre bi mu séqoon ak yenn nit ñi bugu ko won naxasa naxasaayal xam nu ñu koy waxee mu ne déedéet non lay démé amna ci ay tolof tolof mais ba légui kenn dégguko té ba légui xamna né ba keroog ilaa yu mu diin doo ko dégg mu wax ci loolu yóbbu na yaayam màg yóbbu na papam fees nga dund ba yàlla may la nga mën teral sa yaay teral sa pap teral say rek teral say mag Mohamed euh, gis nga élément bi mais coow li yëpp mooy élément bi sa bëggu xaalis da cee fës lool lool lool ñu ñëw nag ci millions yi yaa ko indi ci làmb ji kenn werantewul loolu mm-hmm. mais nag ku dem nag ba ne bu ma daanoo buñ ma fayul du ma ñëw ci bàkku ñi la mere ñëpp bokk na ci wàll googu lañ la mere mooy bi nga amee defet dañ na yaakaaroon ne da nga ñëw ci làmb ji na xanaa bàkku si non en fait xëy na peut-être loolu du lu ñuy wax ci public mm-hmm. man public du ma si wax affaire xaalis soo mm-hmm. xoolee mais dama am fayda parce que déggalu ma la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ma tuddee jullit dafa war am teraanga mm-hmm. jullit dëgg warul am problème waxuma julli kat de julli ci bir xol la parce que ah, xana ngay waré sallallahu alayhi wasallam dede du waré parce que nag sama turandoor rek lay wax man ci loolu la sukkandiku parce que tay yalla bu mu ko waxee wax ma li nga gëna ragal sa aduna ñak la ko wax so xolé tay yaa ngi wax sa combat ak Moustapha Gueye 97 loolu lambour la fondation madame Elisabeth bu fi nekkon moko teug motax lamb làmb ji non non, dama tok pour joxat la beneen anecdote sen directeur général Babacar Diagne mi tay bokon na ci commission d'organisation, mom moko moo organiser sax. ak l'ancien ministre euh, ndem si yàlla si nee mbay la waaw xam nga. bu ñu sen bilan ba paré tok ne wa vraiment et tout. Euh, on est satisfait parce qu'on a fait un bilan de 150 millions à faire demee xam nga saalum saalum laa comme tu dis comme da nga ne dama bëgg a xaalis. Mhm. sama karaw bopp bi jóg taxaw. Hmm? lamb 150 millions. ma non ma woo suma gars yi réunion na leen man dootuma bëreeti moins de 15 millions. Hmm? après combat boobu gars yi ma non vraiment nag yow da nga dof vraiment sa ndof gu ñuy wax. dëkk na fi na parce que fu l'air laa koy teg xam nga lan moy montage financier et puis c'est dommage en fait Sénégal. kon yow Babacar Diagne mo ubbi bon non non mais wa xaalis boobu. Ah, non xam nga lu tax parce que c'est normal je te donne un exemple il faut euh, euh, rendre à César ce qui appartient à César. Orange bi tay mhm. pour revenir à ci Orange un peu. mbaa mhm. mhm. actionnaire nga ci. non dama lay laaj. Sénégalais yi. est-ce que xam nañ nan lañ def ba Orange dugg ci làmb ji. Cher Tidiane Bay, directeur général au Sonatel. Mhm. Je le remercie euh, euh, au passage parce que Tay, euh, Ligue au Sonatel, Ligue Bourafet, Batay Djogenefi, Souma Harit, et tout. Mhm. Mais Cher Tidiane Bay, maintenant, il dit soo xoolee avant Orange ne sponsorisait que équipe nationale de football équipe nationale de basket Diamond et Alizé mhm. Luc Nicolaï tëgg sama revanche ak Mor mon, mu indi Sentel hello so len ko fàttale ko man ma indi Alizé tribunal exactement mhm. ba tay ñu joggé fi wara def ce qu'on appelle du rebranding rebranding moy tay ñu am ben tour don tudd Alizé mhm. ñu war a defaat beneen tour tudd Orange mhm. commencer ci ay peut-être dizaine de millions ba ay centaine de millions pour wax affaire u tëgg combat so xolé man sama cursus yëpp man promoteur yu may teug bokul ngeylum Mor Fadam moo ma tëgg Cheikh Mbaba ñoom El Hadj Mansour Mbaye yi ñoo ma tëggoon ak ndem si yàlla El Hadj Tafa Ndiaye. Mhm. ma dem Kaolack waa Kaolack tëgg ma. Mhm. bu ma fa jógee Gaston Mbengue si la ma tëgg ak Mohamed Ali. Mhm. ma jógee foofu ma war a bëri ak Moustapha Gueye solidarité partage tëgg ma. ñoom tubaabu joor ABCD ñoo ma tëgg. bu ma jógee si tubaabu joor manga daaw dafay moo ma tëgg. bu ma jógee si foofu so euh, bëreek Mor Fadam Luc Nicolaï. moo ma tëgg. si laa dem Gambie anecdote est-ce que sénégalais xam nan laa def Gambie. kon kay ne yooyu say combat yaa koy la combat la parce que télévision gambienne moo ko et c'est important comme numéro. Il wax dafa am bagage yi fi mhm. partager ko ak ñu bokkal parce que sinon li wax en Afrique si un vieillard meurt une bibliothèque est en flamme xam nga iñaan weesuwul nga gis ne mun nga tibou fi lekk ba suur jël tibou souf sotti ko ci cere ji man bokuma ci façon yoy mais bo xolé est-ce que million yi lamb ji non non non mais comme ni suma xarit bi waxee khadim mang koy remercier khandam xam nga euh, dafa wax wax bo xam dañ koy faral di waxtaane amul ben sport bu ñuy def ci aduna plus de 20000 50000 personnes di koy sétane ça se passe en direct à la télévision Tu ñu koy def nekkuñu ay milliardaires ça n'existe pas hmm. parce que tey sen ñàkk a xam nga Cheikh Tidiane euh, suñ sëriñ dal na yalla guddal fanam hmm. day faral di wax né Sénégal dañuy fekk lu ñëpp mëna bok bokk ñu xëccoo ba ñëpp ñak mais je te donne un exemple ay sociétés yi def fii tay par exemple hmm. en termes de support communicationnel lamb tay da ngay gis ay sociétés qui def ay milliards de bénéfices xam nga bénéfice moy lan bokul ak chiffre d'affaires nga jënd say que def say dépense dépenses ne milliards mais nous, nous ki leen fi indi objectif bu société bi moy tay fi mu ñu doon ay milliards je te donne l'exemple de Orange euh, Côte d'Ivoire Orange Côte d'Ivoire donne 5 milliards à la fédération ivoirienne de football mais il faut que nit ñi yéene wante jàmm ñi war jiitu jiitu. ñu am xam-xam jiitu c'est important. waaye aussi boo xoolee wàllu koppar yeeg doxalin bi. Mm. est que amoo sabab aussi ci làmb ji ci yëngu-yëngu. ndax fi ne nii coow li yëpp mooy nit ñi benn bët lañ xool mooy alal jeeg jàppal bàyyil ji ci ne ci loolu la ñuy xool benn micro trottoir boo xam ne ñoom it wax nañ seen xalaat ci làmb ji. Mm. numéro Tyson de bëggoon nañ mu kon ne làmb de. waaw kon yow bokkoo ci ñuy wax ne Tyson na bàyyi làmb ah déedéet sama sama fans la moom mais bëgguma woon mu bàyyi làmb bëggoon naa mu continuer di ma bëggal ba ci kanam waaw mm-hmm. ah, loolu ñàkk waxtaan la rek euh, parce que gis nga xaalis dafa doy waar te xaalis fu mu dugg dugg faa wax ju ñagaas rek dana yàq lu bari mais xëy na bu ñu waxtaanee ñoom daañu mën a continuer seen écrit continuer bëre bi di ñu bëggal da ngay mel ni mbër mais di jaay intellectuel d'accord naa jàng na institut moom lii mooy métier bi mais na wàcc làmb ji xam réalité làmb ji ñëw bëre ainsi de suite liggéey boo xam ni lu mu bon bon bon di nga ci am ay million kenn da koy ñëw ñaq mais ñëwal nga liggéey am ci sa xaalis surtout man mii moom a taxoon physiquement damay dem bëre ci am xaalis comme ñëpp comme beneen association amoon na fa mu ñëw wax leen ne la ah ñun kat lii ak lii ak lii bu ñu d'accord lee mu doog a def association mais association bu am ñu faxas tey supposé man ma nekkoon mbër faxas association du ko neex moom. waaw association boobu moom ñoom dañ cee juum. ndax juum giñ ci juum moom mooy dañoo waroon a waxtaan ndax lu kenn man ñaare ko ko daax ndeysaan bu fekkee doo bëgg amateur yeeg mbër yeeg yi di ko respecté mais day ñëw xam nu mu demee am na mbër yoo xam ni chaque jour que jëfee bu làmb amee dañuy ñëw mais loolu mooy yoon len li tax muy daanu rek dan kaa dan dan ka kaa def dan ka kaa def moo tax muy daanu rek mais moom am na pla am na technique bu bëre mën naa xeex am na taay yu bëre tamit Modou Lo mooy sama idole mais Tyson nekkul sama idole nee man damaa bëgg rek mu dellu si ci làmb man ndaw Tyson ma nen day bëgg a bëri ku muy bëree amagul combat waaye amagul yal na ko yàlla may ndam may ko mbooloo mu jullit yàlla may ko ci wér ak wér li ñuy wax ne na bàyyi làmb ah, ci sama yoon man man xaw ma ci làmb ji dara ko neexee mu bàyyi su ko neexe bu mu bàyyi mbër bu baax la <laughs> waaw di ko encouragé rek pour yow d'accord ci ñuy wax ne na bàyyi làmb non dafa war a bàyyi. ah loolu nga gis waaw loolu. bi mu taxawal lu ci sa xalaat. bon lu baax la. waay. bu ma war a bokkoon ci ay conseil am wax dëgg yàlla mën na ko bàyyi. lu tax. ah xam nga mbir euh, kii maanaam euh, Ismaïla. Euh, mbir ngor day am avancé day jeex te ngor kenn du ko ñiit. da ngaa jàpp ne Tyson mo def ni mo deful ni ah, moo doon def. waaw wax deug yalla mo deful la wara def. d'accord ma ci mu bàyyi lamba ji ndax lamba ji ci la ko fekkoon dañ ko ci fekkoon mu di ko mu di ko def kon nag gisu waaw gisuma lu tax nag mu mu war a bàyyi lamba bi waaw na ci continuer. que tout citoyen amna droit créer association hein ci ni charte réew mi tëddee surtout dans le cadre du sport bu fekkee ne entité la boo xam ne ñoom déggoo nañu ànd nañ pour protéger leurs intérêts ah am nañu droit créer association ensuite lii question pour mu bàyyi làmb ji c'est un peu le cas El Hadj Diouf sénégalais dafa xaw a un peu jaloux d'une part te yooyu moo ñuy tardel Tyson li mu def ci làmb boo bëggee xëy na na bàyyi làmb na def nii xam nga loolu aussi du yoon da ngay wax lu la neex rek wala da nga jaloux d'une part warul bàyyi daa war a bëre ndax nun moom la ñuy bëggee moom la ñuy supporter man mi mom rek la doon bëggee ci lamb ci nga bu mu bàyyi wal ma am problème bi metti won na ma waaye nak na xol rek nit ku nek ak lula gënal waaye man de bu ma du bàyyi na bëri rek. dafa continuer. Mhm, loolu nga gis waaw laa gis man. Hmm. waaw dafa continuer. Euh, association bi mu taxawal nan nga ko gisee yow. association bi mu taxawal. Hmm. gis na ne dal bu ci continuer dal dana bax trop dal, hmm. bu ñu wàññee rek dal, lepp lu nit di def ta andu dog deggu du dem. no wara tok rek waxtaan deggo moom mi jiitu woon mu jiitu ñu topp ci kawam defar waaw bu ñu defaree dafa seen écurie a ah, yàlla jàppale leen. mbër boo jiitee ay nit ci sa ginnaaw te te jubuloo rek dara du sot xale bu yaru la xam naa ndeyam xale bu yarul ko te baax waaw loolu laa xam ci moom. commentaire. Ah, je pense que milliards des milliards de questions. mais nous aussi si euh, mhm. déjà euh, dans le cadre de on a parlé de l'association parce que nous mhm. ngeen aussi mhm. euh, dernière association nationale des lutteurs du Sénégal. depuis un certain temps peut-être amener new ñuy wax ay affaire VIP ay nangam nangam et tout non. L'association ah, association VIP. non xam VIP en fait. turu communication la rek mais il faut que nit ñi jàpp. parce que tamit il faut que ñuy waxante dëgg. mbagg boo gis. xelam mi ngi yi ñuy wax VIP. ci ay quarante mille francs lañ commencé. di fayeeku trente mille di fayeeku quarante mille parce que tey képp kuy takk ngemb comme ni nga ko waxee teral say waajur nga bëgg. kon 40 000 lañ commencé ba cachet yi yegg fu fenn fi. sa premier cachet ñaata la woon. suma premier cachet defe naa 55 000 lañ ma fay. 55 000. 55 000 kon tey il ne faut pas que ñuy naxaate naan ñii ñoon seen intérêt na te buñ tasee kenn waxu fa affaire cachet. Mm-hmm. dañuy wax tey lu ñuy xool pour que tey làmb ji ñuy yëngatu ñu xool tey nan la ñuy def pour mu avancer. loolu mooy mooy moo sabab association. mooy association bi.

mais kuy fait 30 000 da ngay ñaan 30 000 mais kuy fait 30 000 da ngay ñaan yalla ñu fay la ay millions nga mëna a sa il ne faut pas que ñuy nax nit ñi association bi pour ñu mais kenn ku nekk ci association nous nga demal sa mais association bi d'accord mais association bi Mohamed. Mhm. Euh, association fay amone loolu indi non comme li ma xam nga comme li wax gis nga gérer c'est prévoir mais comme tay dañ na association mbëru démb. mais mbëru tay mun nañ ci baña gis seen bopp. waxu association ancien gloire lamb du ñëpp ñoy am chance nek champion. nek ay gloire suñu waxé association des lutteurs en activité mais mbeur mu nekkatul activité xanaa bokkatoo aussi mais suñu waxé association nationale des lutteurs du Sénégal. mbeur mu mossa tak takk ngemb mu koy tak suba mbeur mu koy tak ginaaw suba si nga bokk lii moy wax ni mais est-ce que amul ay VIP mais non ñepp lay parce que comme je dis. Mhm. il faut que ñu comprendre tam ñu baña personnifier association bi naan Tyson Tyson parce que Tyson coordonnateur kese la. Hmm. su ay nawle la tassel ñu jital ma pour ma coordonner. xel mi assemblée générale hmm. amagul. Hmm. bureau amagul. falaguñ président falaguñ dara kon mbëri yëpp ci lañ bok pour sen yokuté la. ah président bi moom yow lay doon. non non attends man ah. je demande pas non. man comme ni nga ko waxee da nga ne Birima xaw ma pen njoor su waxee ren déwén lay wax. waaw Birima mi ci benn baat bi man je rase les murs. man mosuñ kenn mosuma dégg may xëccoo amul kenn ku ma mos a dégg may xëccoo wala ay kur ci kur man du ma façon boobu. mais xalaat bi ci yow la jógee kon. non dañuy daje waxtaan. Mhm. buñ dajee waxtaan ñu ne li gën kay mooy ñu am cadre boo xam ne cadre de concertation. Mhm. mais loolu association comme ni ko waa ji waxee. loi moko may tay ay nit suñu tassé mais tay nit mën nañ tassé chaque jour ñi gisee guddi gi wala nangam nangam ñu né mais ñi lan lañu ñuy euh, kon looy tontu ñi euh, loy wax ñi wax né manam xeyna da ngay préparer sa retraite kon. mais c'est normal c'est la cour normale des choses. bañ joxañ ne sax ne CNG bi ci la sa xel né oh, non xam nga tay lolu comme ni ñuy wax rek mais yow ya ko waxal sa bopp mais kuñ dem banane CNG mën nako diriger kooku est-ce que ay association yi jaxal nako

waxaguñ sen mbir ñoom am nañ droit tey dañu non nee nañ kase yi mom fee lañ ko yemale mais waxuñ ko lolu déggoo dañ ne lolu duñ ci discuter bah, parce que mbër mu nek ah. mbër mu nek xam nga li ngay jar mbër mu nek da nga am encadrement am papa am yaay am staff ñoom ñoo lay gérer lolu association bi wax aussi kon loolu du débat ay ki mi ngi melni kuy dem marché hmm. mais kenn ku nek xam nga lan ngay duggé soo demee nga xool li la intéressé nga gérer loolu duñ ci wax mais dama ne hmm. il ne faut pas que nit ñi juum nañ xam ne tey ñun mbëri comme je dis mbër su feebaree tay da ngay dégg ñukay kétal wala muy am problème faju wala affaire yu demee non mbër yi tey war nañu am assurance mbër yi tey war nañu am IPM mbër yi tey am nañ problème yo xamné ne amuñ retraite mbër yi tey fi mu war nañu am fuñ dëkk mbër yi tey war nañu am ay autant de problèmes yo xamné war nañ ko mëna régler je te donne l'exemple de Boy tay tey on l'a suspendu qui est mieux placé que qui au Sénégal tay pour conseil Boy liko dal daf ma dal

Mm-hmm. yow it noo rak, a sa rak xey xey rek yow it woon ko ginnaaw nak yow it jàllax ko yow nak fait lolu yep c'est pas important xam nga. ëmb génn écrit sa ëmb seen amul importance. non c'est pas important parce que tay da ngay am sa dom da ngay am sa dom yar ko jangal ko takal ko jabar ber ko. c'est la cour normale de la vie. mais ber da ngaa wax am solo. xam nga sëriñ day ñaanal ndongo. non dama lay wax ber gi nag. Ismaël est <laughs> defal dàgg rek. Uh-huh. xam nga tey loolu mooy la. ñaan moom lii beroo ko ñaanaloo ko. déglu rek waaw xam man su may wax. Uh-huh. damay wax lu toog. Uh-huh. loo xam ne kenn du ko déplacé. parce que duma wax su ma bakkan. mais damay wax ak dëgg laay wax. wax tamit ak suma xol moo tax duma waxantu Eumeu Sène comme il a dit dañoo dund loo xam ne maak moom moom xam na ko man xam naa ko yàlla suñu borom xam na ko et que tey man j'étais son ami Eumeu seen dañoo joxante cër ba dañoo rusante j'étais son grand frère j'étais son ami. mais pourquoi j'étais non c'est important lui j'étais. mais je préfère je suis. non déglu expliquer je suis pas un faux type man suis wax dama je ne mhm. mhm. et il a perdu un ami suis un homme. xarit du caaxaan xarit si baatu olof mooy xarit quelqu'un boo xam ne dangeen ngeen di partager lépp maak moom on dañ doon partager lu bëri xarit bi gën ci xarit yi mooy ki bëgg ba pare am xel xarit bu gën ci xarit yi mooy ki bëgg ba pare am xel comme noonu bu gën a garaaw ci noonu itam mooy ki ba pare am xel

dem nañ ba tey mu ëmm comme tu dis ku la yar nga jël jikkoom ëmm tey bi muy nekk ëmm ëmm suy wax sax da ngay gis moo à travers ba tey changé wul non léegi changé na am na sikkim bàyyi na affaire yi. Ah, xam nga ah, tu xam nga affaire yi demee noonu tout mm-hmm. pour wax la rek suñ complicité. Mm-hmm. bi muy dem ñëwul ci yow ne la maa ngi dem ñaanal ma. non xam nga tey comme li muy wax rek ëmm su nekkoon su bu mu nekkee suma kër. Mm-hmm. su doon dem boutique sax. day ñëw ne ma big maa ngi dem boutique. su doon génn daf may tàllal loxoom ma ñaanal ko. est-ce que moom jàppul aussi ne Mohamed da danga ko da koo da koo seetaan ci coow li xëy na. non non non seetaan ci coow mooy lan. mooy bi coow li amee euh, euh, xëy na xëy na uuf ga nga ko waroon a uuf xëy na uufoo ko ko kon. no man kilifa laa du ma def du ma def affaire coow li bu mu amee comme ni ñu ko déggee ñëpp. ñi war a woo ñëpp si suturam coow kenn du ko régler si mbedd. Mhm. coow dañ koy woo ci biir kër ñu toog ut solution. mais def nga loolu bi coow li am. absolument ñi nga xam ne séq nañ coow li. Mhm. muy Gaston Mbengue. Mhm. muy Luc ak ñoom. Euh, staff bi yëpp ak ata ñëpp daje nañ suñ kër loolu kay bind nañ ko ñëpp xam nañ ko et pour autre solution. ana ata ata mi ngi fi mu war a nekk. c'est-à-dire. non mi ngi mi ngi si jàmm. Mm-hmm. Euh, noo dundee jafe-jafe attaay yi. waaw avec beaucoup de peine parce que nag eh, nit koo xam ne la. Mm-hmm. dañ ma xam ak moom te ma am lu ma xam ci moom. Mm-hmm. mooy euh, nit ku dëggu la nit ku jub la jafe-jafe yàlla moo koy tege. bi nga tàmbalee di yëg ay defet Mm-hmm. surtout nag coow li yow ku mel ni ëmma mm-hmm. tay si nga comme ni ñu koy waxee léegi boobu la uh-huh. nee nga sax changé na look bi bu njëkk ni muy watoo nangam mm-hmm. léegi bàyyi na mu saaseeg yooyu bi mu daanee bal la est-ce que jàpp woon ne nag da ngaa waroon a wu bàyyi ko écrit bi parce que loolu la ñëpp wax mais ëmma rek nekkul si écurie lu tax may retiré wu pour bàyyi ko écurie loolu amul sens écurie yi ay nit ñoo fa nekk di liggéey mais États-Unis non non Eumeu daf lay bëre man may bëre xam nga Gambien di bëre Aliou Mané di bëre keneen ak keneen Jordan nekkoon fa taay ak ñeneen ak ñeneen mais écurie du benn nit ñaari léegi ñoo des ci bi fi ne am na ay ñi fi nekk Gambien ngi fii Aliou Mané mi ngi fii euh, Valdo mi ngi fii mbër yeneen mbër yi nga xam ne tey ñu ngi leen di tàggat ñu ngi fi euh, Eumeu Eumeu Sène nga koo gis euh, barkaati démb. yéen gi déggante. barkaati démb gise nañ ñoo toog sama sama soxna euh, frère am. Mm-hmm. dafa génn àdduna maa ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla xaaree ko àjjana. ñu da koy jaale muy Black Diallo. Mm-hmm. Eh, mu ñëw fa jaale fi maa ngi moom ñoo toog. ndax jàpp ne mën nañu jàpp ne da nga jàppale ëmm ci yoon wi mu jëm. c'est-à-dire. maanaam ci làmb ji taxaw taxawaayu mag ci wetam. ginnaaw nee yaay magam. waaw xam nga tey comme li may wax rek ëmm li doon waxante. Mm-hmm.

àdduna du tout le temps ngay am ay nit yoo xam ne mun nga compter si ñoom par circonstance parce que tey dama neexle xam nga wala tey dama naxare mais xarit pour tey la pour ëllëg la pour ginnaaw ëllëg la. et man jeté son ami. waaw euh, noo dundee sàq gi nga sàqi ci mm-hmm. suspension bi la ñuy ñëw ci làmb ji. sàqi waaw wala fay wax sàqi waaw mooy ci fulla rek laa ko teg. et que dafa melni ni daf ñu ci hmm. nan. ci deug kon regret non regret. l'arbitre hmm. c'est comme le juge. il est là pour dire la vérité. kon yow nangu wona ba daanu nga batay non am nan ngay daan euh, daan la fu ko ba il n'a pas dit la vérité. Mohamed Doha, alias Tyson, a troqué le pagne pour le costume cravate et l'arène du stade Léopold sangor pour une arène beaucoup plus médiatique. C'était hier devant toute la presse sénégalaise et quelques supporters que le champion de lutte a frappé un dernier grand coup. Pris solennellement la décision de mettre fin à ma carrière de lutteur professionnel. Une décision irrémédiable qui fait suite à sa disqualification à l'issue du combat contre Bombardier. Croyant avoir gagné le match, Tyson refuse la décision de l'arbitre et quitte l'arène dans son rutile en 4-4. La sanction du comité national de gestion tombe, trois ans de suspension et une amende équivalente à 75% de sa bourse grand seigneur. Il cède son reliquat de 5 millions de francs CFA. Le lutteur récuse la décision de l'arbitre, regrette de n'avoir pu se défendre et tourne la page avec amertume. Encore une fois ce n'est ni la victoire, ni la défaite, encore moins l'argent qui sont la cause de ma décision. Dans la vie, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes. Depuis 12 ans, Tyson a marqué de son empreinte ce sport où il a gravi tous les échelons. Une carrière qui explose après sa victoire contre Mustafa Gay. À chacune de ses sorties, il crée l'événement et la cote financière des lutteurs s'envole. Véritable idole et exemple pour la nouvelle génération, son départ va laisser un grand vide dans l'arène sénégalaise. Mohamed, dañu ci ñew ak yow jom boko donné rek lu baax rek ngay xam ak fo mu na jaar nak ak lu metti metti lu baax rek ngay xam ne kon sama taw yaay am fulla am fayda jar baatam jaral ko lu nekk nak ba tay jii nga xam ne ni mu laq adina kërëm jabaram mo fa dess ak ay domam di ndey ummi jey mu ngi fi sëñ gannaaw rek fala Mohamed di ngembu ndax cofeel gu nijaayam amoon ci ay jarbaatam amoon ko ci ay bokkam uuf njaboot gi moo tax bi ba mu dëddoo àddina dama ko ne foofu doo fi jóge mukk Mohamed nag ñëw gis lu metti lu yàgg lu ma dund mu taxaw ngir fajal ma ko loolu nag moo tax ma xam ne li ma waxoon ne yaakaar naa ne su su doon tëgg ay pot sax yàlla suñ borom mun na ko cee defal parce que dafa am fu mu ma jële am lu yàgg lu metti ma dund ko moom mu di ko xool gis ko te dara taxu ko woon a jóg nag lu mooy fajal ma loolu mu jëndal ma maris mu ne ma yaay sa kër a ngi nii yaa ko moom. lu rëy ma duggee ci kër ga ma xool kër gi macha allah ma ma xool ci suuf fekk mu def ñu def gason dama ne ko maam it man lii këri tubaab nga ko def parce que yaa ngi ci def ay gason ay làmp ak yi te li ma gën a kii mooy fu yaatu foo xam ne dinaa fa mun a lal basan pour fu ñu julleeg yooyu. ma am yëg-yëg boo xam ne ma ne man daal kër gi teraanga ji ma yàlla defal tey ci kaw suuf ma di ko sant yàlla di julli ci yonent bi te da baax maalik amoon naa yéene am doom tuddee ko ko kër gi dippee naa ko ko bés ni ki tey loolu moom kerek lu ma yëg ci sama xol la am na lu ma waxoon ne ma yaay man lépp lu ma dugg rek suba ba ngoon rekk xamal ne yow yaa tax même bu sama bakkan bi doon des sax te ma teral la ci rekk am naa ci ndam lépp lu ma ñaan rekk ci kàttanal yàlla suñ borom te mu mun ko bu doon loo xam ne joxe suma ruugi la sax te mu yokkuteem yàlla suñ borom bàyyi ko fi sax dinaa ko def Euh, muy lu am solo loo xam ne commentaire. soxna si comme je dama koy ñaanal yàlla suñu borom mu bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te wër. Mm. nit ku baax la euh, taalibe la euh, yaayu ñëpp la xam nga dañuy faral di wax ne doom su baaxee nekkatul sa doom doomu ñëpp la. dama ko waxoon ne ko lii may dugg waxuma sax xam nga ndam souvent dañuy foog ne ci alal la mais jikko. yonent bi sallallahu alayhi gën taggewuñ ko lenn lu dul jikko mooy tey am na doom mu nekk homme public ça fait 17 ans de carrière man kenn du ma dégg si caaxaan loolu dama ci sant yàlla loolu fierté la parce que tey su ma defoon lu ma warul def su ma jàkkaarloo su ma yaay damay am kersa kon tey loolu maa ngi ci sant yàlla si valeur yu ñu def ci man yar ma jàngal ma diine def ci man ngor ak jullite kon tey maa ngi koy ñaanal yàlla bu baax lii mu wax aussi tamit euh, waxu ko rek parce que moo jur Tyson mhm. mais lu mu xam la du wax moom lu mu gëmul te man aussi valeur yooyu dafa nekk ci man man tamit du ma wax lu ma gëmul. Mhm. waaw euh, Mohamed ñu ñëw ci sa diggante ak États-Unis ci mhm. drapeau bi laay ñëw. yow nga dëkk ci réew mii di Sénégal. Sénégal amub drapeau euh, nga jógee ci banlieue bi comme ni nga ko waxee am foo xamee ne yan woo drapeau Sénégal muuroo ko. dem jël drapeau États-Unis d'Amérique muuroo sabab. Barack Obama la sababoon. <laughs> kon da ngaa lis xaaroon gis ne Barack dina nekk président. mooy loolu. xam nga tey. non loolu loolu. lan la du Kenya. Mhm. origine am mhm. nga def-def boo gis rek liñ ci war a jàngat moo am solo. tey nit mun na jóge comme Martin Luther King lu mu doon wax. Mhm. I have a dream. tey maa ngi doon xalaat bés dina mun a ñëw tey noir américain d'origine africaine wara pour être président des États-Unis hmm. parce que ci Lolo aussi j'ai été reçu par le président des États-Unis Nous top pendant 24 heures xam nga tey am naa fi combat ak manga lu américain di wax July 4 4 avril 4 juillet la woon 99 américain yi ku leen xam ci rigueur affaire yi demee noonu et tout seen indépendance day boobu dañ ko renvoyé ba lundi bi pour fête ko yàlla ñu ñëw nag ci comme ni nga ko waxee mhm. yow yaa wax dañu jékki-jékki rek ñu ne Tyson Cheikh mhm. yaa ko sàkku am daa dikk dal sa kaw non du lu may sàkku loolu seen une manière de dire que ne comme ni ma wax rek Mouhamed fi nga teg sa tànk baax na. Mm. bu ko teggeeti ba ilaa yow mi dini man balaa ñuy wax cheikh. man Mouhamed laa tudd. Mouhamed Ndaw laa tudd Mouhamed mooy daj dëpp ci cheikh bi ak làmb ji. loolu amul solo parce que déggalu ma la wax. Mm. li am solo ci biir la. mais nag nit ñi dafay ne cheikh bi. waaw non que boobu ñu ngi dund zahir bi mais baatin bi du loolu. sa combat du yomb de.

mi ngi si jàmm alhamdulilah. kon doo ñaareel. Ismaël dag ne ma ana soxna si. waaw mhm. doo ñaareel. ñaareel c'est pas à l'ordre du jour. mais dàqoo ko. man jullit la lu ma yàlla may kay du ma ko du ma ko dax. damay bañ ngaa doo reer de. Euh, Mohamed am nañu mbégte tey bu ñu la joxoon kàddu gi ne la tëjal looy tëjee. Euh, sant yàlla bu baax julliwaat ci yonent bi sallallahu gërëm sumay waajur ak suma sëriñ Maolana Cheikh Ibrahim di kontaan ci sénégalais yi nag di leen euh, euh, delloowaat suma bopp. Euh, di wax ne rek Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu ñaan yàlla suñu borom yàlla def jàmm ci réew mi. RTS am na mbégte bu rëy. Mhm. ci dalal gi ñu la dalal. mooy comme li may wax rek xam nga télévision nationale la wax njëkk juddu njëkk a baax. parce que RTS en fait euh, nekk na télé bo xamné du télé Masamba du télé Mademba télé askan bi la kon tay je pense que né lolu xëy peut-être amna ño xamné mo ne leen fi jiitu et seq nañoo mom ay liguey yo xamné dans le passé. et tamit lamb fu mu yegg aussi tamit RTS yóbbu na ko fa yeggale na ko fa parce que tay amna archive yo xamné soko soo am RTS rek ngay ñew mm. kon tay euh, nga am honneur tay ñu woo la pour def ak yow émission je pense que ne ñun tam ñu ngi koy rafetlu. di euh, ñaan yàlla suñ borom xam nga mu def jàmm Sénégal. Euh, am ñu mbégte kon di la gërëm di la sant. Hmm. di gërëm aussi sa waajuru jigéen ci nangul gëm ñu ko nangul. ñu leen sant di leen jox dox daje seen beneen émission dañ ko ko jërë ngeen